salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar laata ñuy ñëw ak yéen ci revue de presse bi ñu ñëw ak yéen ci mbiru Ousmane Dembélé Ousmane dembile nag mi ngi wéy di gën a jege Paris li ko waral moo di kat Paris li ñu bëgg moo di fay clause bi ko bàyyi ca Barcelone yóbbu ko ci seenub club mu doxal tey jii sax revue de presse bi journal yi nekk ca Barcelone googee moo xam sport la ba ca Mundo Deportivo ci mbir moomee la ñuy wax nee ñu guerre totale moo am ci diggante Paris ak Barcelone dinañu ñëw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 transfert yi yëpp xamle nañu ko daanaka ku ci mel ni Fabrizio Romano foot mercato ba ca Matte Moreto ñëpp xamle nañu ne Ousmane Dembélé nee na waaw waa Paris démb nag ci bëccëg bi waa pari dañoo woo waa Barcelone bëgg waxtaan ak ñoom ngir jënd usmaan Dembélé waaye kat waa Barcelone ñoo tëj buntu bi xamal waa Paris ne leen ñun jaayuñu Ousmane Dembélé ablewuñu ko leblewuñu ko te su fekkoon nag ubbi nañu bunt bi ngir waxtaan mën nañu ko jaayee sax lu ëpp cinquante millions d'euros waaye Barcelone dafa gàntal waxtaan boobee loole tax na nag waa pari noppi nañu ngir jox cinquante millions d'euros muy clause bi nga xam ne moo bàyyi Ousmane Dembélé ca Barcelone teg ko ci loxo agent wu Ousmane Dembélé tudd Moussa Cissokho su fekkee nag Paris def na loolu maanaam jox na cinquante millions yi Moussa Cissokho Moussa Cissokho li muy def moo di jox ko wa Liga bi Ousmane Dembélé jóge ca Barcelone xaatim contrat ca Paris mbir moomee nag li tax mu gaaw moo di Moussa Cissokho nekk agent wu Ousmane Dembélé bërki démb bi Barcelone di jàkkaarloo ak Real de Madrid gañe ko ñetti bal ci dara Moussa Cissokho mii ma nga woon ca stade ba loolee nag neexul woon njiitu club boobee di Barcelone Barcelone rawatina seenu président ndax Moussa Sissoko dafa bëgg xaalis lool te waa pari nag dañu ko dig xaalis bu bari ci mbir moomee loolee bokk na ci li tax mu fexe ba convaincre Ousmane Dembélé maanaam mu fexe ba juboo ak moom ngir Ousmane Dembélé ne waaw wa pari li ñu bëgg nag moo di fay clause bi nga xam ne moo ko bàyyi foofee ca Barcelone yóbbu ko ca pari mu doxal waaye loolee nag dara officiel agu ci lu ci mën di ruusandi nag dinañu ci ñëw ak yéen waaye jamono jii daal moom mbir moomee sori na bu baax a baax sport sax mi ngi xam le ni waa Barcelone kat xaalis boobee bu ñu ca jotee li ñuy njëkk a def moo di wuti latéral droite bu saf sàpp mu ñëw jàppale Xavi latéral yi ñu bëgg nag bari nañu lool rawatina doomu portigal bii nekk ci Manchester City du Joao Cancelo waa Barcelona ngi koy bàyyi xel ngir xaalis bi ñuy jëlee ci Ousmane Dembélé ñu copati ca as tuut def ko ci moom jëlee ko ca Manchester City yóbbu ko ci seenub club mu jàppale leen waaye Ousmane Dembélé moomee tamit waa Barcelone faw ñu wutal ko remplaçant jamono ji ñoo ngi bàyyi xel ay ailier yu bari waaye nag doomu Allemagne bii di le roi Sané bokk na ci ñi waa Barcelone gën a teg gët ngir lan su fekkee Ousmane Dembélé jugee na ca Barcelone ñu jëlee ko ca Bayern de mu wuutu ko foofee doxal waaye jamono ji nag dara officiel la gul ci mbir moomee njortu képp la sport moo xam le xibaar boobu waaye Ousmane Dembélé moom waa pari ñoo ngi baral jéego yi di jéem lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir yi xaatimal ko contrat waaye incha allahu rabbi comme ni ma leen ko waxee dinañ leen ko toppal ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci kanam tuuti ak rovie de presse bi incha allah